wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat lu bees a bees képp ku bëgg yónnee barkeelu ci Touba ca kanam jaarale ko ci Wizall Money léegi mën na nekk lu yomb la téléchargeel sa application Wizall Money ci Play wala App inscrire ubbil menu bi bës facture bës si logo Touba ca kanam yónnee sa addiya yow mi amul compte ci nga bokk mën nga dem ci bépp point Wizall Money yónnee sa addiya yàlla nañu bokk ci ñuy jëmale Touba ca kanam Wizall Money compte bi yombal seen àddina Wizall Sénégal mooy distributeur monnaie électronique wu Ecobank Sénégal ak Banque Atlantique Sénégal wajalilaayi maskani tuubaabaat misras